lii daal dara xiiruma ci dara xiiruma ci lu dul loo xam ne lu ma doon souhaité la woon parce que avant dama ko doon def ak xale yi muy ñi nga xam ne mooy taalibe yi booba xaw ma sax lan mooy Europe ma koy defandoo ak taalibe yi di jënd samay ñaari kilo beñe di ko defandoo ak ñoom chaque jour nag may souhaité doon loo xam ne dama koy partagé ak ñëpp parce que man partagé sama jikko la loolu yàlla moo ko def ci man may souhaité di ko bokk ak xale yi yàlla nag mën na ma xiiruma ci jox mag mais xiir na ma ci jox xale su ma nekkee xale yi ci laay gën a sentir sama bopp man bañ ko ba bàyyi a eh, ànd xale yi moo ma a lu ma munte am daal bi ma ko commencé ak xale yi ak taalibe yi doon ñaan yàlla un jour ma def ko ba barki dem ba ma tëdd bi ma tëddee ba caag comme xale yi ne ma waa bàjjen kañ la ñuy def feet bi ma ne leen bii kenn du ko def la 25 la 31 décembre lañ koy def incha allah ñu ne ma ok. comme ñoom dañ daan dem seen petit gaale bi ñu ne ma dañuy dem seen petit gaale ma ne leen kon dañuy dem seen petit gaale bi bàyyi bii ñu programmé ba ci wax ma tëdd ba fajar bi ma jullee ba pare rek ma daal ne mais pourquoi xale yi ma arrêté leen dem ci hôpitaux yi parce que xale yi ñëw naa indil naa leen sërite ma ak seen yaay yeeg yooyu cette fois si damay bàyyi xale yi ma dem ci euh, hôpitaux yeeg yooyu ma ñëw après ñëw toog ak sama yaay ma ne ko yaay man daal damaa xalaat. dem ci hôpitaux yi ak euh, pépinière bi ak euh, camp bi parce que am na ay jigéen ñu fa téye yoo xam ne sax may nawle lañ ñii mën nañ ma mag te ndogal du du jéggiwul kenn te mun na la dabee fu nekk te foofu noonu ñoom ñu nekk soxla nañ fa ndimbal malgré bu ñu nekkoon doomu président sax soxla nañ fa ndimbal ma tey ma malgré aw dara de mais as néew bi ma am ma souhaité partager ko ak ñoom loolu moo ma dugal ci lool. bi mu amee nag bi ma waxtaanee ak sama yaay bi ma ci pare waxtaanaatuma ci kenn ku dul usmaan Ousmane Cissé laa woo ma waxtaan ceeg moom bi ma ci mu ne ma loolu amul luñ ci dellu gi naa ma woo sama ñaari mag tamit ak Binta Saw ñoom ñu ngi ci biir kër gi muy ndeyaas su Binta Saw ak xajata ñoom ñu ne ma lool de duñ ko sax waaj dañuy jóg léegi ñu dem ci moment boobu yoruma sax xaalis mais kenn ki daal na ma ne denc naa fi benn xaal nax ma jox la ko ma ne ko waa jox ma ko si lañ ànd ñun ñett ñu dem commencé jënd si lañ commencé noonu lii moo indi affaire bi mais du dara te li may ñaan mooy ñi ñuy fekki tey barki Seydina Mouhamed ci daraja Cheikhul Khadim mi ma yaakaar bu ne ñooñ yàlla nañ dimbali ñeneen parce que suñ borom amul um, kii mayewul day dénkaane tey lii may leen di jox nii suñ borom daa am kum ko jox ci banque bi la jóge jaar ci kenn ba yegg si man mu jóge ci man day dem ci ñoom kon maa ngi ñaan su ma leen fa fekkee déwén ren déwén yàlla nañ dimbali ñeneen barki salaat faatee di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal nit ñi sutura parce que sutura moom bu lépp maa ngi ñaan yàlla na yàlla may ñëpp sutura parce que boo amee sutura rek ñàkkoo dara may ñaan tamit sama moroomu jigéen ñu delloo si bu boîte yeeg yooyu yëpp am na solo nit fu mu toll def yo fi ndaw mais nañ delloo si xel xam ne tey am na ñu ko gën a mérité li ñuy taxaw di ko jox waykat yi li may wax nag nëbbu ko je fier de la diir mooy nañ jël xaalis yi ñu may di ko baatare ñu yóbbu ko ci millier yi ñoo ko gën a soxla man damay may waykat man ku ma way ma may la mais nag am na moment boo xam ne lu ma jël yenn somme yi di ko jox benn waykat te ñoom ñu am possibilité jël vol dem ci dëkk bi am possibilité jël seeni oto dugg ci dëkk bi waay def la waykat yi mérité nañ ko ah parce que fii kuñ fi tàgg nga ñu nga maye mais nañ nañ sóoraale ñu nekk si jafe-jafe am na ñu ko gën a mérité nañ leen sóoraale parce que tamit nag ñi ngay taxaw di leen baatare suba boo nekkee ci jafe-jafe ngor mën na leen fa andi mais nag am na nu muy demee duñ la fa fekk de kon ñii tamit ñu nekk si biir nañ leen sóoraale ñu fekk leen ci kaso yi partager ak ñoom bu ñu mayoon yenn heure yi journée sax dañu yendoo ak ñoom pour wàññi seen stress man tey xol bi ma am mooy ñi nekk ci prison bi ma bokkook ñoom ñi tëdd ci hôpital ma bokkook ñoom enfants yi nga xam ne dañ leen bàyyi ma ni ma partagé ak ñoom tey su ma amoon tey fu ma leen dugal loo xam ne man maa ko moomal sama bopp lu fu ñu mën a nekk dama leen fay dem def parce que nit amul dara nañ sóoraale lool ndax àdduna bi jaxasoo na jamono ji neexatul xaalis bi bari na tal euh, barkeetul ñu xol bu baax fi ñuy tek sañu tank na xaaliss bi bari na ma ngi koy waxaat encore une fois bari na mais barkeetul 100000 francs benn journée nga koy jaay bu ñuma bokal ma ak ñi ngeen fekk tay keneen posuma man nak politique ma dama nek Allah di liggéey di nan sama doole lolu xaaliss bama don dalé doole la bokk ak ñi mais du politique do du kat du kat du dara du kenn kenn fekkuma si ku ma ci fekk nag suba xëy na sa ngor moo la indi mais nag man politique ma te duma ma sa politique loolu moom saa soit clair man lii jubluwuma ci politique da loo xam ne dama ko doon ci sama yaay muy dimbaliwaate deret jooju moo nekk sama yaram